docteur Seydina Oumar Seye maa ngi lay nuyu. oui bonjour. maa ngi lay nuyu bu baax sa xel màcc ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom tey nag muy bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel euh, lépp lu jëm ci wàllum commerce équitable pour yow ndax loolee euh, daana indi dara ci koom-koomu réew mi. bon effectivement en fait euh, commerce équitable euh, bu ñu koy wax comme ni ñu ci version française bi. c'est juste benn commerce boo xamante ni day assurer la la dimension écologique mais ab benn. ay commerce la bu ñu teg depuis il y a vingt ans à ce que les gens respectent tout simplement le partenariat producteur ak revendeur fexe de telle sorte que ci biir commerce boobu képp kuy liggéey ñu respecté ay àqam ak yelleefam du dépasser yenn seuil de travail yi mu am transparence am équité am yooyu yëpp yoo xamante ne tey jii bu ñu ko tegee ay njeexital la yoo xamante ne day law teqi ñëpp mais commerce équitable élément la yoo xamante ni ici au Sénégal nekkagu fi lu am doole mais par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu teg les nouvelles autorités buñ ko jëmbalee bu baax comme ni ñu koy féetee tey muy journée mondiale du commerce euh, équitable donc loolu lu am solo la ci ci njeexitalu économie Sénégal parce que day laal ci côté yu bari muy entre le producteur le revendeur le consommateur mooy kiy jënd yooyu yëpp ça nous permet d'assurer par exemple ay coopératives wala loo xamante ni tey jii c'est un écosystème d'une économie wala voilà, approche endogène en tant que telle parce que loolu moom mooy esprit commerce équitable. Mhm. yan condition nag la ñu war mën a teg rek ngir mën a am euh, commerce équitable. bon en fait les les conditions c'est respecter les les les dix parce que commerce équitable dafa ànd ak ay principes principes yi am na dix mën naa ci cité ñett rek y a l'équité am na transparence am na l'engagement des producteurs à respecter la biodiversité tout ce qui est l'écosystème bi nga xamante ni ay produits bio la ñuy def à telle enseigne que on n'aura pas ay problème de santé publique après parce que maintenant les gens avec euh, augmentation yi def pour produit gaaw ñor yooyu yëpp dafay am ay njeexital ci la santé des des populations entre autres également avec la dimension mercantiliste bi nga xamante ni moom le producteur yi def nañ am xaalis nañ am xaalis rek mais du coup eh, si on n'a pas le choix par exemple des ménages yu ñu amul xaalis bu mat wala li nga xamante ni moo leen di permettre ñu jënd lekk lu baax ñoom nañu am rek la ñuy xool te loolu il faut que l' état soit plus regardant pour xool ci produit yi dugg nan lañ koy gérer notamment côté importation bu nga xam ne du ñu xool léegi prix bi yomb na nañ ko am. Mhm. alors ci loolee sax mu nekk occasion rek ñu euh, laaj wala ñu samp laaj goo xam xamante ni dina jëm ci ni ñuy consommer ci loolee sax ñi nga xamante ne ñooy euh, producteurs yi ndax di leen bàyyi xel ci conditions yi nga xamante ne moom la ñu war a teg ci wàllum production. waaw xam nga les producteurs moom li ñuy wax toujours munis par le gain par l' mooy ñoom nañ am xaalis rek mooy l' mercantilisme bi ma lay wax léegi nag li nga xamante ni mooy état moom moo am la mission boo xamante ni tey jii mooy def contrôle mooy def transparence mooy xool équité bi mooy xool dix principes yooyu ngay gis yëpp ci commerce équitable loolu lay bàyyi waale xel def de telle sorte que yooyu ñu war a respecté muy bio li ñu war a respecté ci prix accessible li ñu war a lekk euh, respecté ci lekk lu baax lu sain loolu rôlu état la moom mooy ñëw fexe ba ah nit ñi fa ñuy jëlee ñu saytu ko xool est-ce que ce sont Euh, des produits plutôt labellisés wala certifiés or bu ñuy wax labellisation wala certifié y la dimension qualité qualité bi buñ koy xool ci njeexital nit bi lu muy lekk est-ce que ay biens yu consommables la à long terme ban njeexital lay am ci nit ñi et pas que ñu am rek parce que boo defee constat bi bari feebar yu bari yoo xamante ni commencé nañ koo xam vingt ans derrière nos parents nos aïeux xamuñu woon loolu maintenant ak globalisation mondialisation bi ni mu amee produit yi dañuy duggante rek léegi nit ñi avec la concurrence à outrance on n'est pas lekk bi muy bari na feebar yu bari boo xoolee ci yeneen dëkk yi amu fa te commencé naa xew fii donc bu ñu tafaatee euh, taxaw seetlu ñu jëmbal dëgg-dëgg ni ko waxee ci commerce équitable man na régler lu bëree bëri dana régler non seulement ci santé mais dana régler ci absorption de main d'œuvre et surtout ça permet à des producteurs locaux mooy ñi nga xamante ni li ñu jëmbaloon bu njëkk ñu daan bayee maanaam bay di dundal baykat donc loolu lu am solo la te commerce équitable day def loolu. Mhm. bu ñu fexee ba tey jii ci commerce équitable boobu ñu am ay politique de prix yoo xamante ni baykat bu ñëwee gerteem duñ ko imposer rek bon de toutes les façons mënul jël gerte ji denc ko mais duñ ko imposer ay prix yoo xamante ni dafa obligé jaay ko commerce équitable da day def de telle sorte que ki bay li muy jaay dina ci gis boppam. loolu lu am mhm. solo la donc maintenant l' état moom moo war a les politiques doon wax day rejoindre li ñuy féete tey alors justement ci loolee est-ce que état au Sénégal euh, teg na fi ab benn politique koo xam te ne dina ko mën a tëral ci wàllum commerce équitable rawatina euh, wàllum importation bi. absolument absolument c'est dans le projet mais maintenant euh, c'est des mesures yoo xamante ni elles maanaam ay mesures yu yu progressives et graduelles maanaam da ngay gis yoo xam ne ni bu ñu saytoo teg yi après teg ñaari pas tuuti fexe bu ñu mënul am tamit tey jii lépp li nga xamante ni mooy équité mais ñu commencé par transparence bi après ñu dugg ci équité dem de telle sorte que producteur bi li muy bay di ci gis boppam parce que ci référentiel bu bees bi nga xamante ni moom la les nouvelles autorités teg mooy le projet loolu noonu tuddewuñ ko comme concept bi ñuy wax équi euh, commerce équitable mais esprit bi loolu la esprit bi loolu la dans la mesure woo dañuy am approche endogène boo xamante ni dañuy bay loo xam ne ni tey jii moom la ñuy dundee c'est-à-dire que bu ñu xoolee en somme bu ñu dawalee projet bi dëgg dañuy dem de telle sorte que benn grain de riz wala beneen céréale dootuñu ko importer mais on va regrouper ces producteurs à des coopératives ñu dooleel leen comme esprit commerce équitable bi ma lay wax nii ñu ciy gis seen bopp ñay bay di ci gis seen bopp revendeurs yi di ci gis seen bopp à telle enseigne que duñ amati benn dépendance comme bi ngay souligné noonu ci commerce extérieur c'est-à-dire à travers des importations. alors mu mel loolu. Mhm. waaw mooy en fait loolu la. mooy modèle boo xam ne ni bala nga koo dawal nag il faut nga am le moyens politiques bi moo tax boo xoolee les nouvelles autorités par rapport ak le le les des institutions de Bretton Woods Banque mondiale FMI amul problème dañuy dikkandi sukkandiku dëgg ay résilience ànd ak ñoom ba nga xamante ni d'ici deux mille vingt cinq on pourra démarrer le projet ci yooyu ngay wax yooyu yëpp politique yooyu ñu ngi ci pour ñu am commerce équitable pour mbay mi ak tout ce qui est les alors mu mel nii rek dina tax sax producteurs yi ñoom ñu mën a am euh, rémunération jëm euh, ci seen wàllum liggéey. absolument parce que commerce extérieur loolu la maanaam waxtaan la boo xam ne ni partenariat la entre kii defar ña ko nar a jënd ak ci kay jaayaat ba ci ñun maag yow ñi nga xamante ne ñoo koy nar a consommer di daan consommer lu baax. mais ki jaay bu demee ba gisatu ki boppam loolu ngay gis l'exode rural à Dakar c'est-à-dire la la la l'agriculture mbay mi. dundalatul baykat bi donc du calculer benn benn benn recette wala benn mois moisson boo xamante ni c'est c'est c'est saisonnière c'est-à-dire que trois mois la ciy am dara après ba déwénaat da koy préféré mu dem Dakar di laver oto cinq cent par jour demi journée mën na wàcc cinq mille donc dix jours c'est cinquante mille pratiquement su ko defee mois day nekk ces recettes li muy am ci benn saison des plus du ko jaralati donc foog ñu développer loo xamante ne tey jii dañuy am ay agri entrepreneur agri cultivateur soo xamante ni c'est un agro business agriculture mécanisée la intensive maintenant nag loolu esprit la et je pense bien que les nouvelles autorités mu ngi ci livre bi ma lay wax nii mooy le projet approche endogène boobu mooy faire de telle sorte que les jeunes amaat benn vocation boo xamante ni don de soi la ay vacances citoyennes organisées je pense bien ñoom wax nañu ko c'est-à-dire que jeunes yi commencé dès à présent ñëpp dem bàyyil réew mi bàyyil askan bi pour ñu mën a amorcer li nga xamante ni moom la ñuy wax tout simplement cette euh, souveraineté alimentaire in fine alors lan la ñu mën a def rek ngir mën a yokk li nga xam te ne mooy comme koomu réew Sénégal. bon bari na liñ mën a def je four saurais le dire c'est-à-dire que liñ mën a def moom mooy doxal yoon liñ mën a def mooy tegu ci benn trajectoire boo xamante ne tey jii bu ñu defee transparence ci lépp li nga xamante ne moom lañ tënk Sénégal depuis am na yu ñu tënk mais lii jafe ci lu bari mooy li ñu tënk teg ko est-ce que ko doxal parce que day am ay goulot d'étranglement day am ay détournement d'objectif entre autres et je pense bien les nouvelles autorités ci loolu lañ taxaw tem mu fexe ba lii ñu tënk xam ni mooy yoon bu baax bi ñëpp d'accord ci ñu tegu ci mais surtout mu am ay sanctions mu am ay politiques yoo xamante ni c'est coercitive et incitative à ce que li ñu tënk ñun ñi di ci tegu mooy liggéey surtout am benn productivité par tête boo xamante ni les Sénégalais dañuy liggéey ci fànn yépp nag. Mm-hmm. respecter li nga xamante ni moom lañ tënk xeex corruption bi c'est important mais également la transparence l'équité ci lépp. loolu daal je pense bien ko bu ñu ko jëmbalee donc Sénégal vraiment euh, des années à venir surtout les générations futures dinañ ci gis seen bopp mais fu may jeexalee mooy tamit ñu am culture comme ni nga xamante ni moo développé dëkk tubaab yi ñuy xas ak américains yi bu ñu ñëwee tey fekk seen dëkk yooyu ay gratte ay pont mais parce que leurs aïeux dañu jëloon consentir en sacrifice fi bu ñu baaree autoroute bi tuuti pour yokk ko wala ñu toj fenn pour defaraat ñun ñi du ñu am benn temps de latence bi ñuy muñ loolu pour que suñuy doom. du ñu am problème yooyu donc je pense bien que ñun fi ñu gën a taxaw muy situation monde bi nga xamante ni pratiquement ñu ngi frôler troisième guerre mondiale qu'Allah nous en préserve mais ñu def de telle sorte que ñu serrer la ceinture accompagner ces nouvelles autorités pour que dès deux mille vingt cinq vingt six Sénégal jaare fi dem ba faaw pour que demee suñuy doom duñ fayeti ndox ak courant pour que demee suñuy doom jàng bi day nekk lu gratuit mais nag loolu ñun génération yii fi nekk ñooy gunge gars yi serrer suñ ceinture pour njëriñale suba. mais du léegi tout de suite loolu je pense bien que il faut ñun ñu am vraiment euh, maanaam am lu am courage wax ko mooy tey jii état dina continuer maintenir le soutien conjoncturel jàppale li mën a nekk pour que demain situation bi jaar loo am te ni ba faaw day jëriñ les générations à venir. docteur Seydina Oumar Seye jërëjëf may fàttali rek ni sa xel dafa màcc ci lépp lu jëm ci wàllum koom-koom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. averti merci c'est moi maa ngi leen di fay.